force vive de la nation yëpp ñu ngi fi je pense que loolu am na solo parce que jamono ji je pense Sénégal dafa soxla ñu toog waxtaane ko pour que li nga xamante ni ci la ñu jëm muy ay élection présidentielle ñu mën ko am euh, dans des conditions yoo xamante ni moo gën parce que loo gis ci àdduna je pense que waxtaane ko pour que dëkk bi am jàmm moo gën lépp waaw xam nga aussi xam nga aussi je pense qu'ils ont totalement tort parce que jàpp naa ne euh, bañ a ñëw ci dialogue bi mooy nekk ennemi de la paix te ennemi de la paix amul je pense qu'il faut que les gens reviennent à la raison et je pense que la porte encore est ouverte à tout le monde pour qu'ensemble qu'on puisse retrouver la paix dans ce pays. Mais à trouver une solution pour que ce pays puisse aller de l'avant. Merci.